jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur 2A TV ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen a jaajëfal tey vendredi yem ak 3 mai 2024 ñu fas yéene ñëw ak yéen li gën a fës ci xibaar yi ba ca jiitu nag bokkoon na ci conseil de ministres bi nga xamante ni dañ ko amal exceptionnellement démb ci alxames bi yemoo ko ñaari fan ci weeru mai li ko sabablu woon nag mooy suñu njiitu réew son excellence Bassirou Diomaye jaxaar Faye dafa daal di rek gis ni am na ay actualité yu daal di tënk réew mi ay musiba ak balaa yoo xamante ni am na ak mbir yoo xamante ne jaarul yoon daal ba tax na mu daal di regroupé ay euh, ministre am euh, toog janook ñoom euh, waxtaan la mu njëkk tënkee nag ci conseil des ministres boobee ba jiitu rek bokk na ci accident yu métti yi nga xamante ni ñoom ñoo occupé tali bi fan yi ba tax na lu toll ci fukki nit ak juróom daal di cay ñàkkee seen bakkan ak nombre bu takku boo xamante ni ñoo ngi kër docteur jamono ji di faju la mu digle nag mooy que ni ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum dem beek dikk bi na daal di accélérer la cadence daal amal ay campagne campagne de sensibilisation xool naka lay def rek ba jënoo ak euh, chauffeur yi euh, ngir ñu xam lan moo nekk problème mu euh, tali bi ba tax daal accident sur accident di am ba mu ca noppee daal dinay jaale képp koo xamante ni daal am nga ci ab mbokk bu ci génn àdduna waaye tamit nee na solution nu mu gën a gaawee donte sax catastrophe naturelle la waaye nag nañ xam naka ak nan la ñuy def rek ba yooyee accident daal di fay gëcc ba ca topp nag ba tey ci wàllum conseil des ministre bi ca li nga xamante ni moom la digle moom suñu njiital réew wu Dakar dem dikk bi nga xamante ni daal OFNAC dafa daal di épinglé euh, kii nii di maître euh, Moussa Diop mi ko fi jiite ay at yi at yi at gis na ni daal liñ koy tuumaal ni dafa def ay surfacturation ci ay oto ak indemnité bu takku bi nga xamante ni euh, jël na ko tegu ci fenn ba tax na daal digle na daal ngir ñu daal di dem saytuwaat li nga xamante ni moom moo di gestion bi tàmbalee ko nag ci fépp foo xamante ni arrêt de bus dem dikk la ñu def ci ab étude bu approfondie daal di ñëw tegal ko ko sur la table ndax bokk na ci li nga xamante ni rek moom moo di ay bëgg-bëggam yamul foofee tamit nag daal di nay wàcce ay bopp yu bees waaye yamul foofu benn yoon nag ginnaaw ba mu daggee ay tet ci ñenn ci DG yi nga xamante ni tekki na seen tànk daal di nay falaat yeneen DG yu bees tàkk lu tollu ci dix nouveau DG ba ci jiitu di Babacar Gningue bu FONGIP moom tamit nag moom lañ fi teg démb Dayru Sarr bu ARTP Assane Meng Dakar dem dikk nen ne Mbodj Kudd maître Ngagne Demba Touré ñu daal di koy dénk li nga xamante ni moom moo di SOMISEN Aminata Aminata Sarr Teresa Rokhaya Thiam Kozek Abdoulaye Niang Sones Mamadou Habib euh, Diop Mamadou Habib Diop moom tamit ñu dénk ko Sarr Ibrahima Ba euh, CFS mi mel na ni nag moom euh, jamono ji mi ngi tàmbalee bu baax a baax a baax di xoolaat rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo am mauvaise gestion ci tête yi nga xamante ni moom lañ leen dénkoon maanaam daal ci fauteuil yi nga xamante ni moom lañ leen joxoon te matale wuñu li nga xamante ni moom moo di seen ak ak seen ay yelleef ginnaaw ki nga xamante ni moom moo di tata Mimi Touré daal dinay këf kaddu gi gi na daal moom li mu gëm mooy euh, ki la jàppale di la téttee ba dara doonul dara moom nga war a àndal ci li nga xamante ni moom moo di euh, xeex bi euh, ci kàddu yi nga xamante ni tënkee nag ko moom Tata Mimi Touré mi nga yëgle ne rek bu ñuy gagné dañuy gouverner waale ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jàppale woon ci guerre bi kàddu yooyu naka lan la ci jublu est-ce que day xalaat boppam ni moom war na mën a am place ci gouvernement bu bees bi soit mu nekk ci ab directrice wala mu nekk ci ab ministre dafa mel ni nag Tata Mimi xaddiwul te ba tey mi ngi toog di xaar donte sax ko koy euh, fësal euh, ca bu ñu noppee ci loolu dañu ñëwaat ba tey rek ci li nga xamante ni moom moo di wàllum littoral bi daanaka semaine bi yëpp moom moo nekk la une de tous les journaux ginnaaw ba suñu njiital réew daal di rek mbir mi ak euh, dënn bokk ci projet yi nga xamante moom la ñu ko porté waaye tamit nag bokk ci projet yi nga xamante ni nee na moom la gën a tenir à cœur mu daal di koy tàmbalee ci capitale bi di Dakar arrêté lépp loo xamante ni travaux la ca diwaanu corniche bi ñu ni déet waaye nag mu daal di ciblé ay région def ab descente surprise ca diwaanu Thiès Sky benn dëkk ñaari gaar quartier bu Mbour kat foofee nag ah, fekk na fa ay nit yoo xamante ni dajale nañ fa ay hectares yu bari ñoom ñoo ko moom fekk fa ay nit yoo xamante ni ah, am nañ fa ay ah, terrain yu baree baree bari te amul fenn foo xamante ne rek wékk nañ ko fa wala ñu teg ko fa d'ailleurs sax ci ay kàddoon mi ngi doon wax ni ki nga xamante ni moom moo fa am 40 terrain bu déggee boppam dina ko xam te nee na nag dina gaawantu bu baax a baax a baax ngir mën a porter combat boobee laataa ñuy dem rek di wuti li nga xamante ni moom moo di ay faux document ngir mën a firndeel ñoom ñoo ko moom en tout cas yemul foofee benn yoon euh, ministre bi nii premier ministre bi nii di Ousmane euh, Sonko moom tamit nag daal dinay listé li nga xamante ni euh, moom moo di ay priorité fi nga xamante ni moom moo di conseil des ministres ba tey neena na nag du teggi benn yoon tànk rek ci li nga xamante ni moom moo di wàllum dund bu cher bi donte sax ñoo ngi gam-gam leel ba xam mën na nekk wala mënul nekk d'ici le 15 mais comme ni ñu ko sababloo woon waaye nee na dina def le tout rek ba daal di subventionné li nga xamante ni moom moo di dund bi waaye tamit yamul foofee benn yoon priorité mi nga xamante ni bokk na ci euh, li mu gën a bëgg mu ngir mu daal di aajowu na mu gën gaawee bokk na ci ba tey réforme fiscale yi ak campagne de production agricole bu 2024 euh, waa nee na wàllum euh, mbay mi moom suñu njiital réew moom dina def le tout rek ngir ñu am li nga xamante ni moom moo di consommer local bu fekkante ni lépp lu ñuy soxla rek ñoom dinañ leen ko daal di jox waaye mbirum consommer local dinañ ci dem ndax mbir moomee dina gën a tax rek dund bi daal di yomb mbirum 100000 logements yi fi suñu président Macky Sall daal di bàyyi nag nee du ca teggi dara benn yoon fas nee sax a yokk cere dolli ñeex ci yooyee cent mille logements xool naka la ñuy def rek ba accompagner ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan bi ñi amul kër war a mën a am kër ca na mu waree ka jiite of nag nag jamono ji dafa mel ni nelawutul ba yandoor benn yoon la muy wër rek mu ay résultat yoo xamante ne dina ko teg ci loxol suñu njiital réew ba tax na nag jamono ji mën nañoo compter lu toll ci 883 plaintes ak dénonciation yoo xamante ne rek jot nañ ko ci wàllum secteur foncier bi yamul foofee nag ay surprise yu bees bees bees ñoo ngi koy gis euh, depuis démb euh, ba tey euh, ba tax na daal Seydi Gassama mi nga xamante ni moom moo nekk ci cappaandawu Amnesty National nee na daal mbir mi jarul sax procureur di xaar nañ jël plainte yëpp daal di koy déposé ci taabalam mu daal di def liggéey ba ca na mu gën a waree ba ñu xaar benn yoon président ki nga xamante ni nag fësal nañ ko loola ci li nga xamante ni moom moo di wàllum luubal alalu réew mi wala sax enrichissement illicite wala sax nag ñu daal di koy duppee li nga xamante ni moom moo di surfacturation ki nga xamante ni gën na caa fës depuis démb ba tey nag nag moom moo di sëriñ bu bu CCBM nee nañu daal dafa doon jëndee a ah, dialyse à ah, huit mille francs CFA doon ko jaayaat frère am ah, ci trente mille francs CFA directeur Carrefour médical moom tamit dan ko revendre quarante mille francs CFA ñi nga xamante ni ñoom ñoo di malade yi loolee nag nekk ab scandale boo xamante ni ñoo ngi koy waxtaanee mu mel ne nag surfacturation yamul dong ci fi nga xamante ni moom moo di Dakar dem di kay ak yeneen société yu ñuy gis surfacturation boobee daal dinay dem ba ci wàllum santé ku ne xam na ni nag ab dialyse feebar ba dafa métti lool teg ci tamit du feebaru baadoo la te daanaka baadoo la yu doon la dal chaque semaine nag ñu war a dem mën a dem rek raxas li nga xamante ni ah, moom moo di seen ah, deret seen loxo jotul seen ah, ginnaaw a teg ci tamit nag njuuj njaaj am ci ñi nga xamante ni rek ñoom la ñu dénk mbir moom moomee daanaka askan bi nag loolu moom moo leen gën a métti ba tax na ñoo ngi ciy woo son excellence ngir mu daal di rek accélérer la cadence waaye tamit nag ngir mu daal di def la ca war surfacturation demee ba ñi ñàkk seen ah, bakkan ci ah, wàllum jalis ah, bi ñëpp mën nañoo gaawantu sax ni tenir nañu responsable ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon a yor mbirum santé bi ca na mu waree te yoruñu ko rawatina nag ñu ñëw ba ci wàllum jalis di ci amal li nga xamante ni moom moo di surfacturation ñu daal di koy daaneelee rek ak li nga xamante ni moom moo di wàllum Barça wala Barsak comme ni ngeen ko déggee noonu la demee Barsak Barsak mu mel ni ndaw ñi nag ñoo ngay wëyal lekk di jël yoonu géej géej mën a utali réew mu tugal ba tax na daal ca diwaanu Saint-Louis déparé woon 63 ci euh, ñoom ñoo daal di ñàkk seen euh, bakkan euh, neuf rescapé dong ñoom ñoo te daal di muccee ginnaaw nag li nga xamante ni moom moo xew mbuur békki dem tamit gis nañu la même chose yeneen i ndaw daal di ci ñàkk senn seen bakkan bu njëkk ba ñàkk yaakaar la woon ci seen réew te jamono ji nag moom nee ñu yaakaar am na ndax ñoom ñoo jël a Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di koy def njiital réew ana lan mooy xaar toog ba xam dina leen wutal liggéey am déet waaye ñoom daal ñoo ngi continuer di dem réew mu tugal wala ñàkk sa bakkan jërë ngeen jëf